campagne électorale bi moo ngi fësal résultat wam yu njëkk ndorteel gi nag ñu bari niñ ko foogee nag demeewul noonu ci seen boor Jomaay Fay ay nit ñu takku daal di koy topp am itam Amadou Ba ak ñeneen ñi. bokk na ci li ko wund nag li ñu gàttal diiru campagne électorale bi bu ñu sukkandikoo ci ki xam-xamam màcc ci wàllum politique. amagul programme électoral bu leer bi nga xamante ni ni mun nañ cee sukkandiku luñ gis daal mooy ku nekk ci ñoom mu ngi wax wante dara dara leeragul ci ñoom ndax euh, programme électoral bu leer bu mën a tax ñu wax ni ñii pare nañ ngir doxal daanaka mun nañu wax ni loolu amagul. soxal Amadou Ba nag mu mel nii li nekk ci ginnaaw dafa bari buñ sukkandikoo ci Mamadou Sy Albert nag rëq du ñàkk diggante Amadou Ba Ba ak ñi mu bokkal benn bokk yaakaar. Amadou Ba di def campagne di ubbi campagne te deful euh, amul benn meeting d'investiture comme Diomaye par exemple. naa ñu chef de parti Moustapha Niass PS ñu ñëw toog jàppale ko mais loolu quand euh, dalul xel. bokk na li gën a fës ci ndorteel campagne bi nag ay scène de violence loolee nag mënees na gàllankoor doxalinu campagne bi. gouvernement bi war na bàyyi xel ci sécurité. parce que su commencé nii rek euh, surtout période ramadan 5 heures 6 heures su amee activité rek tension lay jur. ngir yombal. amalum présidentiel euh, daal di ñoŋal mu Sénégal ci wàllum démocratie euh, faaw rek ñu daal di teggi loxo Jomaay Fay loole di gis-gisu Mamadou Sy Albert